non non non. xaw ma ko. Thiat moo tooñ. Thiat demal toog. Thiat demal toog. Thiat léegi nga ñëw xëy non xaw ma ko moom xaw ma ko. wax dëgg yàlla waaw naa. waaw. sa waa Thialé yëpp sunu waa Yëmbël sunu waa Diamaguène sunu waa Malika Malika mooy tuub sunu ñëpp waaw sunu waa Zouar sama waa dëkk ñu jàpp si yi. ku ma xamoon lu koy wax moom ak yow toxaloo bañ la rek waaw toxaloo bañ bi dañ leen a dalal toxaloo bañ la séance deux moo koy gën a toxaloo bañ bi waaw kii xam nga mu baax Zarko Mbaye guy fii fii nii. moom xam na man du ragal. doomu seew laa doomu seew bu ragal amut. seew doomu seew bu ragal amut. seew gaat seew gaat xam doomu seew bu ragal amut man du ragal barki alxuraan. jeex na tàkk foofu ragal du fa dëkk. du ragal kii moom xool wax la am si affaire yi rek mais man ak moom yàlla xam na ne du làmb billaahi barki alxuraan maa gën a ñeme lu métti foofu man korite ba pare laa mujjee denc drapeau kon man a kii mooy loolu noonu quoi xam rek bëgg a wane suñu bopp moo tax ñu jël ko man moom sama daal liggéey war tool yi lan nga ci liggéey lépp ma ma dañuy liggéey lu métti parce que séeréer naa moo xamee dañuy liggéey lu métti bu na jàppee xam ne kii xaw ma karat ma lay karaj karajee ba nga tëdd ma daan la. am na solo wooteel. waaw kii kii moom am na lu ñu wax ñu ngi woo waa Caaro yëpp waaw di woo waa Caaro la Caaro ma seen fay ma sama réew man Caaro ci si kaw la parce que sëñ Fallou man amul lu Caaro yi mu mën a mel Caaro la waaw man Caaro ko moom ma ñor ko waaw kii naa moom lu mu koy wax waaw. ayca wooteel fii. waaw maa ngi woo waa bool gépp rawatina seew gi ma dëkk maa ngi woo waa seew xam nga ak bépp tund bu wër seew rek maa ngi koy woo maa leen woo ñoom ñëpp. di woo waa Bel-Air di woo waa Malika maa ngi woo waa Gambie bu baax di bëgg sama gars yi fan si club bébé kirij bi 100 pour cent aw seen fay gis naa ni may taxawoo ak waa Ikri Malika mbooloo sama kër su mbel maa ñëpp di bëgg waa Jilaas bu baax a baax. rendez-vous a 3 juillet Géol Mbaye yóbbul ma ko balaa guddi. parce que tey jii sa si sa sa mbër ñuy bëri bu fekkee da ko bëgg rek te yàlla tax waroo ko yàq la bëri ci mbër yoo xamante ne fi mu ne aj nañu ne dootuñu bëri ci arène nationale ci stade bi mu mën a doon li ko waral mooy say supporter da ngay bëri daanu ñu jàpp siis léegi nag kon équipe bi bu dee ci arène nationale ak bu dee ci bi ko équipe bi pour moyen de sécurité bi bàyyi ci xel bu baax a baax lan ngay wax waaw di wax supporters yi ñu ñëw rek non violence mooy loolu noonu ñu rafetal ko ndax affaire bi ñoo ko moom quoi te yaakaar naa ne loo moom doo ko yàq alalu ñëpp la nañ ko rafetal rek luñ moom la comprendre nga. lan nga wax supporters yi. supporters ñu ne ñu xam waa caare xam ne caare nga indi mbooloo xam mosuñu yàq làmb. amiin di woo sama gars di woo waa caare bi di woo Fall di woo ñoom Rahman jàpp si ko Bayral Sall waaw di woo ay yaa ngi làmbaay. randu baa ngi ci mbul. maa jooja degen. ma ca ngoonan lu rëy la maa jara ñoo jara ñoo jor sax yu tàkk ñoo jara way. te ñoo dim ñaay gisal.